marche bii ñu jëgal tey naan dañ koy def ci commémoration de la convention des droits de l'enfant dañoo jugé nécessaire que ni bu baax ci lenn lañuy gëna yëngu tay moy lan problème état civil ndax xalé dina dem ba tollu ci benn classe nek CM2 waxa def tay examen ñu yewu ñu ne ko extrait de naissance. dañuy dem vers la commémoration de la convention internationale des droits de l'enfant te fogna ku wax droit de l'enfant rek état civil occupé ci place bo am solo mu nek li ngeen di nek di li ngeen di te député maire Abdoulaye Baldé daf leen ci ndax bañ ñu am ay ci waral bu ñu jël bu takku tabax lañuy woyé centre secondaire d'état civil bi nga xamanteni ñong koy ci hôpital régional pour yombal. utum extrait ci biir Ziguinchor. xale ñoom ñooy avenir u ëllëg kon yéen dama bëgg xale ngeen xam ni yéen a ngi seen droit te caravane bi ngeen def dina tax képp kuy kilifa mën a xam gën a mën a jox dëkk euh, àq seen seen seen i droit ba pare ñu gën leen a protéger te lépp li nga xamante lu leen di permettre ngeen évoluer ci conditions yu baax la ñu mën ko ci.